FPGW fédération des président groupe WhatsApp tey alxames juróom-ñeenti fan ci mois de mars 2023 il est 9h55 minutes ci Ndakaaru di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun am tiis ak naqar di jaale mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci wàllum yoon magistrat yi avocat yi greffier yi ñoom ñëpp ci génn adduna maitre maître Ousmane Seye maître sey Seye di avocat bu mag ci Sénégal ñu xam ko lool ci muy défendre lu ëpp ci dossiers yi nga xam ne dossiers yu ñeel état la doon ko yëg ci biir plateau yi ci rajo yi ak mboolem organe de presse bi moom maître Ousmane bu buñ sukkandikoo ci TFM wax nañ ne ginnaaw malaise bu ko daanee daal dinay wuy ji boromam ëttu tas xibaar yu bëri daal di reprendre rendre même xibaar boobu tey suba gi mu nekk tiis nag boo xam ne dafa dalati ñi nga xam ne ñu yëngu ci wàllum yoon ci Sénégal maître Ousmane Seye ñu xam ko loolu ràññee ko ñaan suñ borom yërëm ko xare ko aljana rédaction bu FPCW ñoo ngi koy jaalee mbokkam di ko jaale ñëpp ñi nga xam ne ñu yëngu ci wàllum yoon ci Sénégal jaa ngi jëf